1975, Ibrahima Amirudem, plus connu sous le nom de Juge Dem, est devenu greffier à 23 ans, puis magistrat à 29 ans. Il devint membre élu du Conseil supérieur de la magistrature sous la confiance de ses collègues magistrats. Animé d'un sens patriotique et d'un engagement pour l'intérêt supérieur de la nation, il démissionne d'une magistrature qui a démissionné. Il fonda alors, en mai 2018, sa structure politique dénommée Ensemble, qui se démarque de la politique politicienne, tant par nos politiciens professionnels. Iya fonku liggéeykat yi ñu anu doler waa ji man nga njiit kii de musu ñoo seetaan ñu fay naar bi xoromam doomi réew mi la suñu fierté kenn dootu ko laajte man nga njiit sa loxoog suñu loxo pour ñu liggéey ñu xool li nga bëgg def ko yitte gis nañu la ba am lu confiance ki yow gis dem loo fi mës a def nga ko ko fi mës a jox nga ko bu la nee nga génn dem feneen mais gox rek moo la ñor suñu lañ wër na cim réew xeex nga ngir sa réew la xamul it dégg na la suñu lañ wër na cim réew xeex nga ngir sa ku la xam lit dégg na la nañu ànd jàpp waa ji ku la am lu muy wuteeti lu muy wuteeti bëgg nga njëriñu réew mi am nañu confiance ci yow système lu fi mës a wax def nga ko ko fi mës a diit jox nga ko bu la nee xool nga génn dem feneen mais sa gox rek moo la ñor système nañu ànd jàpp waa feneen mais sa gox rek moo la ñor Julius Dem limu mu ngir askan wi mo ëpp fuuf limu mu ci wut Julius Dem il mérite notre sens Né en 1975, Ibrahima Amirou Dem plus connu sous le nom de juge d'Em, est devenu greffier à 23 ans, puis magistrat à 29 ans. Il devint membre élu du Conseil supérieur de la magistrature sous la confiance de ses collègues magistrats. Animé d'un sens patriotique et d'un engagement pour l'intérêt supérieur de la nation, il démissionne d'une magistrature qui a démissionné. Il fonda alors, en mai 2018, sa structure politique dénommée Ensemble, qui se démarque de la politique politicienne tant prônée par nos politiciens professionnels. de musu ñoo seetaan ñu fay naar bi xoromam doomi réew mi la suñu fierté kenn dootu ko laajte man nga ñi loxo pour ñu liggéey ñu xool li nga bëgg def ko yitte gis nañu ki ñu doon wër yaw la kees ba biir cité yaay suñu mbër nañu ànd jàpp waa ji ku la am lu muy wuteeti bëgg nga njëriñu réew mi am nañu confiance ci yow si dem lu fi mës a wax nga ko ko fi mës a diig jox nga ko bu la nee xool nga génn dem feneen mais gox rek moo la ñor suñu carte lañ la jox sa jaloore wër na cim réew xeex nga ngir sa réew la xamul it dégg na la nañu ànd jàpp waa ji ku la am lu muy wuteeti lu muy wuteeti di nga njëriñu réew mi am nañu confiance ci yow système lu ko ko a diig jox nga ko bu la nee xool nga génn dem feneen mais sa gox rek ñor système nañu ànd jàpp waa ji ku la am lu muy wuteeti bëgg nga njëriñu réew mi am nañu confiance ci yow système feneen mais sa gox rekk moo la ñor juge dem li mu bàyyi ngir askan wi mo ëpp fuuf limu mu ci wut juge il mérite notre sens Né en 1975, Ibrahima Amirou Dem plus connu sous le nom de juge d'Em, est devenu greffier à 23 ans, puis magistrat à 29 ans. Il devint membre élu du Conseil supérieur de la magistrature sous la confiance de ses collègues magistrats. Animé d'un sens patriotique et d'un engagement pour l'intérêt supérieur de la nation, il démissionne d'une magistrature qui a démissionné. Il fonda alors, en mai 2018, sa structure politique dénommée Ensemble, qui se démarque de la politique politicienne, tant prônée par nos politiciens professionnels. ñi de musu ñoo seetaan ñu fay naar bi xoromam doomi réew mi la suñu fierté kenn dootu ko laajte man nga ñi sa loxoog suñu loxo pour ñu liggéey ñu xool li nga bëgg def ko yitte gis nañu ki ñu doon wër yow la kees ba biir si te yaay suñu mbër nañu ànd jàpp waa ku la am lu muy wuteeti bëgg nga njëriñu réew mi am nañu confiance ci yow si la fi mës a def nga ko ko fi mës a jox nga ko bu la nga génn dem feneen mais sa gox rek moo la ñor lañ la jox sa jaloore wër na cim réew xeex nga la xamul it dégg lañ la jox sa jaloore wër la xamul nañu ànd jàpp waa ji ku la am lu muy mu lu muy wuteeti dégg nga njëriñ ñu réew mi am nañu confiance ci yow système lu fi mës a wax def nga ko ko fi mës a jox nga ko bu la nee xool nga génn dem feneen mais gox rek moo ñor système nañu ànd jàpp waa sa def nga ko ko fi mës a jox nga ko bu la nee xool nga génn dem feneen mais sa gox rekk moo la ñor Aziz Dème li mu bàyyi ngir askan wi moo ëpp fuuf li mu ci wut Aziz il mérite notre sens